waaye day ñëw ngeen ci benn vidéo gannaaw bi ñu leen nuyoo di leen jaar tey mën na wax ne dañuy dal ci kaw Thomas Tuchel avers bi monde entier buy suivre sport yëpp dal ci kawam ndax lu toll na sa meilleur jour nga ban ko ba dernier minute ci rawatina maximum benn City mu nekk euh, championnat boo xam ne ancien championnat boo xam ne Sadio Mané jaar na fa def ay exploit nekk jour boo xam ne dafa sonal waa City loolu lépp daan ci indi ay leeral mais laata ñëw ci loolu dañuy wax ñi ngeen ci page ngeen abonné da ngeen bës ko notification yi pour ngeen suñu vidéo otaareel fii ci Rmo Sport waaw yéen ñi ne ci tiktok nak nag jël leen vidéo bi ngeen continuer ko ngeen dugg ci sama seen tap promo sport r m o sport ngeen am ko sama seen également bi ñoo ci Sadio Mané Thomas Tuchel franchement man nañu wax ne Maxime xagn bom ni comme da nga moon anc ñëpp parce que képp kuy légende génn nga wax mu nekk lo xam lu met la maanaam lu toll na grand jour Sadio Mané nga teg ko baax kon daan sonal waa City te dal City bo ñu waxon tak ñu ne effectif lepp yëpp Bayern bi ko ci nga ragal dañ na Sadio Mané te bu ñu leen boo tegoon suur ci monde bi yëpp ko nga raal ñaan Sadio Mané ndax dañu yàgg sonal yàgg leen a jaxase mais li ñu mënta gëm mooy pour pourquoi mu deparlo loo bu toll nii te Sadio Mané bokkuñu mu départ loo takk ci banc bi takkara mas bi jàll ak Sadio Mané euh, forme bi mu wane ak engagement mu wane mu nekk loo xam ne lu banal la l' extraordinaire ñu gis nag ay sac euh, sacrifié carré wane gis nag ci Thomas match bi toll nii nga bàyyi match bi jaxasoo ñu mane la nga dugal Sadio ci heure boobu ci moment boobu ci même boobu ba duggee desaatu dox ñu mën ko critiquer fekk yaa indil boobu ay problème ndax match bi noo mën dëgg ba ñu mënee un bi ñu mbiitaay cinquante quatre minutes soixante euh, cinquante quatre minutes cinquante a ci bi mais jéem a forte pour dugal un ci un bi ba match bi jeex mais fi nga dugal Sadio fekk na dañ laa dominer match bi baaxul jéem def benn militaire bi ci la bon jéem ko defar dugal Sadio mu ñu bi am malgré Sadio tey go ban mais bu dugon table bi ñakkor bi am dañuy wax Sadio fekk du mom waaw sa Thomas Tuchel dal franchement li nga wone gu ni ci premier match Ligue champion ak Bayern Munich yakarna euh, amul sans nga génn ci Bayern Munich ñom malgré bu ñu éliminer ñu dàq ndax fi jël équipe bi mais amna na ñu éliminer ci sa dëkk daal la dàq li metti metti nak da nga rafé qualifier wala bo këlee nga fexé dóor sax sa dëkk 1 wala 2 wala sa nga nil ñoo xam ne ay faute la yoo xam ne dinañ ko réparé mais lii daal baaxul te kenn kontaanu ci ñëpp ñoo am déception ci Thomas Tuchel li mu waneekun ci Bayern Munich malgré équipe bi euh, heure bi ñëw métti na kon gars yi dama nekk ko vidéo wéyandi abonné di commentaire partage like nga ñeen xaar tuuti seen remorse pour ak yeneen vidéo yeneen jàngat du ñu bàyyi dara merci beaucoup sama gars yi am ngeen jaajëf bu baax a baax